gën a muus Then you're fucking me. ne Ah, ah ah Kun ko sekkal di mbala fa nyom nyak. Fucking me di mbalante du ci dellu ginnaaw man dama ko ba jéggi ko sama doom laay jël ba maa lay siyaar ah ah nag nag Sénégal métti na nag fan yii fan yii fan yii fan yii yaa ngi dee suñu ndaw dëkk baa ngi dee ah nañ leen ñaanal nañ leen ñaanal képp koo xam ne am na ci koo xam ne kat euh, ñàkk na ci bakkanam ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que daal xale yi bëgguñu dara bëgg tekki dong tax ñuy def li bëgg tekki kase tax ñuy dugg ci gaal gi waaye du lenn du lenn. waye kep ko xamni am nga ci sa yalla nako yalla matale nga jaar ci yoon wu nice nga dem ci jamm dem ci ambassade ubi dem tukki yalla nako yalla def waye de nga audio bi dugal mako ci groupe bi de nga wa eh eh eh niko, la ramane mayen yow waxuma la won digal bi bu fi jaar kay wat sa man eh eh kay yow lan yow lu bëgg yow ah ah Ah, ah kon yow tey da nga indi fitna man lu ma bëgg. yow lu ma bëgg yow. ah lu ma bëgg ah. yes lu ma bëgg. every time nga coach ngay wax coow coow pour pour lan loolu. dégg nga eh coach la def la lu miti jamate la ba nga yàqu laa lay wax ni nga xam ay loo bëgg yow. di bal bal yow saxaar jàmm yow uh, toj xot butéel. Eh, yow fa say say eh, loolu. loolu yëf fi grand yof la dama lay tegal lu miti dama lay rey laa la wax dégg nga li ma la wax man bandi laa de est-ce que yaa may gis bu baax gis nga samay bët doo ko gis bu baax meen dégg nga li ma la wax. ngay dof-dof lu nii nga nga réglé léegi oh, yow dama la war a jamante fii sax yow bii yoon tey dama lay rey moom tey moom nit mënul wax ba du ma la rey yow du def dara man ragalul yow ah, ragaloo ma e ragaloo ma ragalul ok yow tey ngay dee yow yow bi yow yow gën a dee yow waaw ah, ok tey dinaa dee ragal yow fet chemer ka nga yow lu sa problème yow lu sa problème lu sa problème sa problème ragalul nga benn coot uh, bu tuuti bëgg sonal na uh, américain du nangu loolu yow nga bàyyi Sacha kon yow nee nga da takk for force bàyyi woo da ngay takk. damay takk Sacha yóbbu ko in USA may ko 2 million. waaw da ngay duul rek ngay 2 million. yow nga taxaw kenn. ni ngeen di def bu ñëwee fi nga ay yu am fayan rek foofu rek ngeen koy yemale te ñun ñoo leen gën a nekk nday wa nga foofu. Eh, day ca eh yow oh yow yow yow li la gis nga yow bi laa bu ma la fa gisati dégg nga li ma la wax est-ce que Euh, dama bëggoon a waxtaan ak yéen rek lu ndaw ndax olof njaay dane kuy naan di làqatu moom boo boo boo jengee feeñ xaw ma loolu la wax n'est-ce pas waaw boo màndee feeñ waaw mooy jéng rek waaw boo jéngee feeñ ah, waaw du naan sax daa am lu ma bëgg a expliquer rek mu leer sama digganteeg Fanda mais kii kii lim lay dee tax lan la. Ah, man man faalewu ma ko de. non man de loolu jaaxal na ma de. waaw waaw man faalewu ma ko. naree naree. te nee na dërëm nga ni dërëm day jël rek. ab naa fekk la bu toog <laughs> ci dërëm day jël rek. waaw dërëm jël ah, la déet dërëm ah. sama soxna nag. ah lan sa lan. non sama soxna nag. ah amul loolu. non non amul loolu. sama waay nga nag yow. waaw mais wuy ma kii kii mooy sama kinèse. waaw hmm. soof man. <laughs> li may bëgg a wax yow lan nga xam kii lu xam dërëm kii lu mu la dara. réew gi muy réew ree nii. réew ku mel ne ku xam la te xamul loolu day tiital nit. boo warul wax sax di nga wax ba sosal sa bopp te fekk dara xewul. ma ne daal maa sama xarit la. sama diggante ndaama mi ma doon jéem a làq-làqal ci kër gi. di ko wiiri wiiri fu ne ma dugg ci ak loolu. Hmm. sagam dem na nag ba waa kër gi yëpp toq na ci seen nopp. dama ñëw fas ko koo waaw sama digganteeg ndaama maag moom maag moom danoo bëggante dégg te ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fii ci kanam di ngeen dégg alxayri hmm. ma bañ rek mu bett kenn nag wala yëguma ko woo nag dafa jékki-jékki def lii ci suuf ak waxul ak ñii waxul ak ñaar bëggoon leen ñëpp ngeen yëg ne ci kàttanu yàlla ak mbaaxam alxayri fii ci kanam di ngeen ko dégg ci ma digganteeg ndaam loolu rek laa ne woon naa ñëw wax leen ko pour ngeen dégg ko waaw li ci des na ci yàlla wosal barke. amee dërëm. Hmm? dërëm yow kañ nga fi ñëw ak kañ ngay bëggante ba alxayri di jib ah dërëm yow ñu fii nga wax ma li nga dakk sa sëy bële ak lii la fa jëlee. ah waaw yow nga ñëw defoo fi sax. lu yag du gàtt bi beneen jigen xamoo jikkoom xamoo moy kan. nga ni koy tak waaw man xol na xolat xoolaat ko góor fi nek di lambar lambari fi ci keur gi ngien yor seni jek seni jek di tubay di ma romb samay xel di di di di di di di di di pesse ci ñom sa xel di pesse ci ñam. yeen ñi yor jek ñep ci keur gi. yow du so wax lolu yow. ah lu ma ma moo. sa xel demul ci ci kinemi mo ki dese rek du ma takk de. waaw ah, moo gën waaw man daal. am jàmm am de damaa bëgg a jeegu ni ñëpp. te Ndeye Ndiaye xam naa ne sa doom la. waaw waaw kay léegi nag kii fi ñëw nag bàyyi leen ma ma ma ma jabaroo ko. kon yow nee nga tey doo bàyyi. tey laa lay noq noq yu miti yow. noq yow yow noq yu miti. noq yow te dama lay jamono caxate la yow. yow jam du def dara. du ma du dara yow. yow moom yow fët chambar yow small tuuti. tuuti la ah. waaw essayé roofoog man nga xool. dama lay noq di ci dëgg rek gën. ah lan lan sale kaay fi kaay down here sit down here lan hey toogal euh, American people kenn du ko tooñ dëgg la kenn du ko tooñ ah. dëgg la dëgg la dëgg la benn yoon bu tooñ American dama lay ray nga noquma waaye yow canga nga noquma bu xoolati sasa Get up, dugal! jungle. next time bu ko dem a touch hot to butel def dogg xolam. man do duma sa morom. waaw waaw look at me man do duma sa morom. Wow. yes. waaw Wow. xolati shisha di dina la ray. I can kill you. baal ma American citizen kenn du ko tooñ. kenn du leen tooñ. kenn du leen tooñ suus. suñu passeport ak seen passeport yi sax bokkul. you can do suus. suus suus the new dance suus. So yes, sir. <laughs> you can do it. Ah, do it. Doe het Yes, sir. Gig. Dat ben ik ook gechebanen. Yeah, she did good. Smoke that. Next time, drink to go. Gun, gun, gun. That. Gun, gun. Not like this. Gun, gun. That. Hey, hey, hey. Gun, Stop. Huh? Not like this. Lilo. Gun. Gun, gun, track. Gun, gun, gun, track. Gun. Okay, go. Oriana mota khanangu. Go go. Chaga. Opijaro tedi Ale. Okay. Dajo. Chaga. Dajo. Papa Dërëm. Waaw. Est-ce que décision bi nga jël sétane nga ko bu baax? Man de jamm rek la la bëggal. Mais fardam du pour yow ando <laughs> mi ngi mel ni safara ak caas. te bés boo ci duggee li nga am lu la metti torop. ki ne yow dafa mel ne yow daa mel ne yow yow samay wax doo ko dégg nee naa la su man na ma rey waaye kooku doon woy woy woo na naa ma rey naa ma rey dugg naa ba pare soobu naa ba pare soxlawu ma conseiller kenn. waaw waaw xanaa loolu neex na ci ne. ba mu duggee ci ñag ba ne na ma rey ba muy génn solul tubéy daa génn rek di daw dërëm dellul ginnaaw. kay reculer yàlla na dee. man de vali euh, validew ma euh, diggante bi nag sama yoon nekk ci te li ma la wax nii. mais yaa fi wax euh, yaa ci wax. yee yow moom dugaluma la sama dara. man moom wax naa li ma lay wax ba pare. ànduma ci tey ànduma ci suba te nag dama cee dégager samay responsabilité bu subaa lépp lu ci mënti am xamal ne fàkki Kiné waxoon na ma ko wala junjoon na ma ko fii ngay dugg nii du doon sa jàmm. déet Kiné déet déet bul dem. lu ciy xew. dina ci xew dara nag. nga ni. li ciy xew moom du ko neex te ñu ne du neex. Ah, ah, <laughs> kii lu muy lu muy wax nii la am dërëm li may xalaat. ah li may xalaat dërëm kii xam na fam bi de kii dégage nag ay responsabilité am de bul gis loo gis dugg ci wala yàpp boo séen ne dama ciy lekk. kii doo wax ak moom ngir yàlla. lan laa koy wax. ah lan laa koy wax. moom mais na génn ci problème moom moom daf may juñ rek juñ rek. déedéet génn cee tax mu ne yoonam nekku ci ëllëg lu ci mën a xew te dina am lu ci xew. wa lan lan moy xew lu lu wara xew lan la. dërëm lu ma ci xam. <laughs> ah dërëm tamit mo la liy xew dërëm mo la liy xew ci wax ji mu wax am na lu ndam de. li ndam lu ndam ken munu ko xam. ah mais da ngay jema a nak bala nga ci dugg. man conseil mo la ni bu ci dugg mais bala ngay dugg man ma sañon nga gëstu wala nga jogi fi dem ci ay mbokam wa ah, Ablaye man gëstu na bu sonn. man lu ma lu ma lu ma laaj ñu ne ma femme bi ku baax la seetlu naa ko ñu ne ma ku baax la man kenn rek laa gis mu may junj kenn rek kenn rek rek moom moom moo ma topp rek moom chaque jour day toog cax ñetti caxam dem dem yoon mooy la kinees man ñi may ñu ma ci waxal ñëpp jàmm lan ma wax. mais moom moom moom daal la yor ay caxam di cax rek ah. man doon yow ma tëddee du ma nelaw te des na pour takk femme bi jóg ci nga xool ko lijjanti ko daal laa lay wax. waay mënul neexul loo ragal lu ne dalay gaañ sonnoon nañu lool Un UGP ay produit yu ñuy utiliser ngir suñu bopp fii mooy BBC Shop vente de produits alimentaires venant d'Amérique yamul foofu vente de téléphones portables et accessoires ak wàllum transfert d'argent lépp ngi ci boutique mani xale yi jigéen ñi des produits pour femmes sont disponibles des collagènes des oméga 3 pour la forme ay produits yu mucc ayib pour seen biir ñi nga xam ne dañu bëgg jeex am nañu aussi ay parfum ay make-up lépp lu jigéen di teewoo mi ci biir boutique ane xale yi góor yi bëgg dagg yu baax mani ne ay protéines yo xamni boko nané ko yaay raw Usain ay vitamines ay produits alimentaires yu baax a baax moo yéen lu ngeen foog xalé yi ngi ci biir mané ay jus bonbon ay épices pour togg yu saf saf ma ne xeetu bu baax dal fi rek la fekk baax ci gattal lepp lu nit bëgg mi ngi ci BBC Shop alors qu'attendez-vous ñi ngi nek rond-point Mbour 1 quartier Ousmane Ngom téléphone 77 875 14 14 ba livraison partout à Thiès et aux alentours ak BBC Shop doo padam Fatou Dame lan nga doon kan. Padam, Dame gis naa leen ngeen kan. Padam, Dame wax ñu ngi doon waxtaan. waaw lan ngeen doon wax. lu ñu doon waxtaan suñu waxtaan rek lañ doon waxtaan. lu tax la boo méttul na la waxal li ma la xamal. seet tet tet tet tet noonu Ndeye Ndiaye dangaa ñeme kaa ñeme waaye loolu la. man ma dox ba dégg leen nga naa ma ay loolu kaa waaw léegi yow yow yow Ndeye Ndiaye yow ñun dañoo wax lu aay. Ndeye Ndiaye bàyyi loolu kaaw xam nga lan lay wax. waaw euh, dafa sacré. ma lay wax. bu fekkee fàddaam lu mu la xamal. Ah. teel ma koo wax bala mu ma wax ndax bis ma ko waxee jam la sax mën naa koo def man xam nga moom bu ma meree. xam nga yow yaa ngi commencé di di def ay plan de guerre. te dara xewagul ndey lépp loo nekkee wala loo xam ne lu ñuy nëbb la teel ma koo wax. kaaw. lan laa lay nëbbu. lu tax mu naa li ma la xamal la la la Faddaam war a xamal. mu le ma Faddaam xamal yow loo ngay dégg télé rek ngay wax dem mun Ndeye Ndiaye nii nga ma def si Amérique bi ah. yoon Amérique bi nii nga def nga fàtte ma fàtte couloir boobu noonu mënutuma def dara sama xel nekkul si man ah. ngay wax ay affaire dama génta tey encore gisaat nga Fatou Dramé nga naan li nga wax ak Fatou Dramé Ndeye Ndiaye lan moo xew Ndeye Ndiaye tempo tempo. Eh, yow yaa war a def tempo tempo bu ma waxee ngay mel ni eh, eh, kii lu mu di mel ni kuy rab réglé laa la waxal ak man correctement baal bu may wax nga may bluffé li may wax xam nga ko. day ma def nii rek. wax ma li ngay nëbb laa wax. def del def nii la waxtaan ak man yow moo tax ma tëdd guddi sama xel xalaat ne ah xew xewu sasaa bii laajoon nga ma xaalis ma ne ah man xaaral kon ma lijjanti waat xaalis jox ko sama soxna man loolu laa mun di la wax am lekkal lii naanal lii yóbbaale lii solul ah, lii lii man maa la ko jox loolu laa mun si yow ah dama waaw xalaat après dinaa la jox deux trois cent mille nga ma laajoon bi paas. trois cent mille laa la laaj ma. trois cent nga laajoon kañ dañ. kon kaala naa ne bul yokk yow itam nag. hey Chacha how are you doing today. oui looloo ti. Oh, yow laaj na la oh, sa jàmm yaram. waaw man maa ngi ni man saa yu ma la gisee damay kontaan. yow Jalle woo what is the problem with your. non sama téléphone bi démb dafa daanu woon. kii woo na woo woo bu bari jël téléphone beneen woo jotol yow. dafa daan woon démb. léegi après laa ko jox xale yi ñu dem defaral ma ko. ok dina la jox nga jënd téléphone bu bees. Ah. ok because dafa war jot every time. ci may njëkk bi nga koy boole. non non. ah d'accord bokkul ci first may bi non non. ah bokk jox la ko ba foo. dama ko war a changer kay. ok mm-hmm. kës tey dikk bëgg na wax ak yow. Mm. okay uh, okay ba uh, abu something that is very important ci suma diggante ak kill. Wow. okay because uh, uh Muyoni, na family sama papa ak yaay ñu dëkk ñu ñaan ñu waxtaan the first waxtaan mm-hmm. ok before the wedding ñu mm-hmm. dëkk but sama papa Akiai, one war na leen photo ah da ngaa jël sama photo wan leen. kay sama papa dafa tiit sama yaay xëm ba ñu gis sa <laughs> nag lan la ñuy tiit ak lu ñuy xam. Euh, wax nañu yow mag nga. Ah. ok wax nañu yow sama yaay ga wax euh, sama yaay wax na gis na la ci euh, télé dans les années soixante mu ne ma kii kanamam bu yàgg. man xale sama yaay wax na loolu. Hmm. bat man déglu ko. Ah, sa yaay tooñ na ma de. dégluwu ko dégluwu ko parce que. non sa yaay waroon na laa wax ne la bul tax kii mag la waaye bu ma xas daal. xasul lu xasul juste wax la xas la loo xas la ci ñun ci ñun. loolu xas la. ok ma wax na xame na la ci télé bi bu bu yàgg. eh bu ma la rusul woon ne sa yaay nag ku mën a kii la nag. American citizen ñun respecté yaay ok. respecté yaay sa yaay moom ma njëkk a manque respect yaa ngi dégg lu tax mu moom na ne la yow bugg la nga takk mag. waaye lu ma ci waxee naan gis na ma ci télé ay année soixante ak yooyu. ok ok so amul problème man xam na sama parent bi ñoom bu ñu décider something dañu koy dañu koy def ñoom wax na man du takk yow because yow da nga mag man ok léegi dina dem wuti uh, another person mu dikk mu mu takk ñu takk ko takk ci suuf ko. takk suuf. yes man duma def takk suuf. takk-takk la. déedéet lu ma def takk suuf takk ci kaw laa koy def siwal ko def samay photo woo samay nit comme ni ñuy xewee gone noonu laay xewee. 300 nga laajoon de. dama ne la laa koy ndawtal mais samay frais yooyu matul 300000. léegi ëpp na ko. loolu bëgguma ngaa yëkkati 1 million rek jox ma ko nag. na yow ñun xew at ba at lañ koy am des ay. waaye dinaa la jox téeméer cinq bii dinaa la ko jox nga teegum lan mooy cinq heures cinq heures cinq heures laa lay jox cinq heures yi fi nan teel a cinq heures nga may waaw léegi loolu cinq di ko cek ak di wut ay ay wax ma wax mooy def yëpp yi bandi <laughs> bandi bandi lu musil ba la wax naa la jox cinq mais xoolal bàyyil mu set ndey jaay ba bàyyil kaa kenn du topp kaa eh, gis nga topp kaa naa ko topp ba mu sës ndax lii ma dégg fi mu toll nii sama xel mu ngi lëndëm Nah la topp de boo yaakaaree ne du ma la topp yaa ngi nag sa bopp man du ma sëy nit ba pare bàyyi la nga nekk sa balanxaan man da du ma ko def de. dégg nga man toppuma la yow toppuma sa. waaw parce que man jarul nga may topp ndax man nekkeewu ma lu bon. Eh. lëndëm mu ma aw ma passé bu lëndëm yow yaa man waaw ma am passé bu lëndëm. waaw Ndeye Ndiaye nañu buur ma laan sutura rek. Adama lan lan nga ma xamal muur rek. Kaaw munoo maa yàq si benn man munuma la yàq yow est-ce que mun tamit ma yàq. man yàquma la de yow yaa wax ak sa mbokk man de Njaay dangaa xam dama laa nopp bu amul fu may taxaw dangay bonda ci sama kaw teg sa nga yow léegi loolu may jaay neex ndey neex nga may jaay ndey ndax ah, ah. waaye ndey ndax suukar moo la gën a neex dangaa neex suukar moo la a ah. suukar ku gën a moo gën a neex waaye lem moo la gën a kan moo gën a neex lem ak suukar ñoo la gën a ndey ndax yaa wax li hmm. dama laa laaj. loolu nga wax wala waxoo ko. suukar ak lem laa ñoo ma gën a neex. <laughs> yaa leen mën naa tëdd robinet yi. nokkal toog waaye yaa leen gën a saf. <laughs> nokkal fële. toppal fële dangaa xam fu nga may jaar rek xaw ma lii lan la man bu fekkee liggéey loo ma dina ma jaaxal yow. Hmm. xool ko xoolal xoolal lu muy def lii moo may rey nag. kof kawar bi di mar lamaj boy nay lokal jogu bi nay nay nay nay lokal jogu bi waay way taw nay bu mu dawee dinaa la porter plainte ye yow mën nga def photo def bat makk bu comme yow takk suuf eh man tollaguma foo xamante ne dañ may takk suuf te man takk suuf si ñëw ko kenn yaa may dégg soo mënee nga siwal ko ci kaw nga siwal ko soo ko mënul nag mu yam fi gis nga yow boo demee sa morom mooy ñëwaat du sa mboq yi nee ñu man mag laa waaye mag bu jar laa nag mag bu ñëpp di wër est-ce que dégg nga li ma la wax. man xam na loolu. est-ce que est-ce que nga. of course xam na. waa lu xam nga. waaw kon baax na man nag kaa duma du topp ci ginnaaw kenn di daw te du ma ne kenn yàlla ak yow xam nga lu ma la yëgal demal dégg li sa ñoom yaay wax nga toog nga dem ci xale man nga bàyyi ma ma wutaat keneen. non non man bëgg na yow ba pare te dara in the world du tax ma change sama sama sama sama ID. you fa nga nekkoon ba tey yaa nga fa. maa ngi foofu ba te yow nangu dara. nangul dara man mooy mu dem wuti beneen personne mu dikk loolu amul problème bu fekkee yow nangu nga fa nga nekkoon ba tey yaa nga fa mën naa waxtaan ak kaaw amul problème kaaw waaw old man waaw non non non amul problème mën naa dem waxtaan ak moom baab ko yëkkati dara rek jox ko daal di koy kii moom mu mu takk bi you see euh, man ak kaaw diggante bi euh, neexul because moom bëgg na ma yóbbu ko USA man wax na déedéet kaaw mer man soo du mën a ko yóbbu waaw loolu amul problème kaaw yow la mere waaye man su ma waxee moom lépp dina ko teg ci suuf bu fekkee ne yow fa nga nekkoon ba tey yaa nga fa tey nga gën a bëgg yaa ngi dégg waxuma takk suuf de takk ci kaw siwal ko xew-xew bu rëy teewal ko xew-xew bu rëy damaa am ak samay xarit am samay nawle yaa ngi dégg wut samay magale wut samay ndeyale te ñoom ñëpp war nañoo ñëw ba sama sañ-sañ ngi ne war a jóge ba Canada ñëw yaa ngi may dégg loolu doo ma ko yàqal Yacine Thioune woon na la Yacine Thioune woon na ma nee na ma dina ko euh, am na xaritam bu war a ñëw koo koy indi ay tarangaam te kooku dina teel a ñëw ndax ci kaw ba ci suuf moo may solo nga bëgg maa yàqal lool ok yow mu leen a bàyyi mbëggeel kii meer la kii xale la mbëggeel amul loolu bëgg bëgg la rek. mu leen a ba loolu. sama yaay wax ne yow mënatul jur dara. yow mag moo sa yaay mënatuma jur. mën naa laa amal ñeenti doom falaa laa mën a yem. ñeenti doom ñeent fa laa mën a yem. because man bi war na tuddee nit sama xarit. sa xarit waaw. yes bu ma tuddee sama papa tuddee sama yaay. déedéet sa yaay sa papa bokkuñu ci. non dina leen tuddee. déedéet kon ñu bàyyi ko American citizen dafa war a tuddee papa ak yaayam. man sama doom du ko tuddee sa papa du ma ko tuddee sa yaay seetal keneen du ko def. Oh, ñoom bëgguñu ma. dina wax bëgguñu ma dina wax ak ñoom. bëgguma bëgguma boo d'accordé daal tuddal keneen waaye sa yaay ak sa papa moom taraanga sax du leen ko jox. ok léegi dina dina tuddee sama xarit Lat Diouf. waaw dina tuddee Ahmed. waaw sama xarit. kas dina tuddee also Cheikh Anta Diop. boo amee doom bu jigéen nag xanaa Yacine nga koy tudde Yacine Choum. waaw dina tuddee also Oumy Diagne. waaw kon baax na. from Canada. dina tudd also Lena Diop. mi ngi ëpp de ñeent laa la wax tey fu mu ne lim nga juróom. Abdoulaye Wade dina ko tuddee Papa Bouba Diop Sadio Mané. oui oui oui est-ce que nit nga. Oh, soo yow wax na pare na pour jur doom. yow man maa ngi dugg ci loo xamante ni hmm. xaw ma sax fu ma jëm ak yow. yow ngay sa kanam gu lewet gii di mel ne nawe bu ñu waxee rek nga naan lii te xam lépp bañ maa moytu nag. ok ba problème sama yaay papa bàyyil ci suuf dina ut naa def te nga réglé nga toog bañ a cencoo time eré mi sì sunyún jàpùn dẹ́fẹ́. sëgg sama biir xeet man la ñu dugg fii sama tànk laa fi dëgg mel ni wagandoo mu sugg pan promoteur moo koy tëgg sama lamb ji moom la ñu bëgg géwal bi ji na ma tëgg gaynde gi kenn du ko dëggu fan si man la ñu bëgg may matale fépp yow mujjee nga cëkk may matale may matale may matale mujjee nga cëkk may matale may matale may matale mujjee nga cëkk may matale may matale may matale mujjee nga cëkk Et eh oui ma la solution est enfin arrivée Dis-moi la gamme vieille jongama ça y c'est à votre disposition kay c'est say c'est say te doo si gis ben effet secondaire Manila un produit à base de carité. 20 jours là la may pour la nexé guen à njaab-njaabu bande fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty cosmétique kou fi sa ñoul désormais a ko teg sa bop woutal VIP lèvres roses mu faj sa adeya ya li ci gëna nerf neex mooy ñaari gam yu ci dolé savon d'urgence à crème visage VIP C'est Zo Beauty cosmétique moo mën moo ëpp doole alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk Dakar mën nañ la livrer partout au Sénégal Nous sommes gaaw League, 77 127 68 80 tey soo du cosmétique lu waay dëgër Y jooy yaay bonne